journée bi sens bu ñu ko mën a jox mooy xam ngeen du guleet Sénégal autorité jóg ne dañuy set setal set setal fii lañ ko fekk waaye li am solo te gën koo jëmmal gën koo ñoŋal mooy ñu def ko dans la continuité ñu ci ñaax ñëpp moo tax ñu defee ko fii ci nga xam ne mooy euh, lancé ko fii ci gare routière de Ziguinchor bi nga xam ne Sénégal Ziguinchor ñëpp a fi daje gan ku fi dëkk ak ku fi liggéey pour ñu góor góorlu bu baax a baax a baax a baax continuité bi am continuité bi ñaara ko sekk ña ca njëkk mooy autorité yi dënk nañ ko gouverneur ñuy am mbégte lool tey gouverneur nu mu mobiliser tous les services l'armée nationale les corps paramilitaires bu ko jëlee ci sapeur jëlee ko ci eaux et forêt ñëpp a fi nekk moo tax ñu bugg a sukkandikoo ci ñoom wéyal mbégte président de la république pour ñu mën a setal dëkk bi ba pare ñun ñu njëkk set suñu bopp pour dëkk bi bañ a tilimaat